barke borom Touba Daaru Rahman ñi ma envoyé message yi te kat tu ma envoyé message léegi su ma ko bëggee capturer mu supprimer ci saa si message yaa ngi nii. <laughs> naante la. daara weer daara weerante la dëgg. naante la maanaam li nga fi waxoon yëpp da koo bëgg a dindi. waaw ndax ne dégg naa nag noonu la nekkee Daaru Rahman. ak lii la sax dégg naa ci politique dégg naa politique bi day werante bay xeex bay jooy. <laughs> lu ko ko jaral waaw dégg naa lu jóg rek moom. pour am na ci yoon. lu waay wax tamit ci këru àdduna. ak lu wax ja mën demee su ko xale yi dee TikTok dina neex neex boo xam ne dafa naan moom moo ko yelloo moo ko waroon a wax. soo ko xam na genre yooyu. soo ko laajoon ndax Cissé nga sant. danaa la non Cissé. <laughs> loolu la lay wax. Ah, na de Cissé la sant <laughs> ma wax mu ne ma sëñ laay borom dër bi sama maam dong. moom la daggal ci dërëm boobu ak tool ma ne ko amu naa ma ne ko man de ñama fa xam naam saaxo naam kànji ñoo xam ne sëñ Abdoulahi borom dër bi su ma saana jiiti ne sama al sami allahu liman hamida ñu topp ca ginnaaw ne rabbana wala kalam bàyyi mbay saaxo mm-hmm. bàyyi amaat kànji mooy ñi ma leex naan ñoo jóge ndaraamee kanji te bi ma neex ndaraamee kanji yow sa kanam fii dégg nga maa ngi doon xuusi dem su fi moom moo ko dagg mais dama la doon bëgg wax même le doyen des juges bi sant kanji Demba kanji amu fi doyen des juges. si si à l'époque. oui oui amuloon. Demba kanji kooku mi ngi dëkk seew xaay Demba Tall aussi amoon na à l'époque. Demba Tall yàggul waaw yàggul waaw. mi ngi dëkk mi ngi dëkk seew xaay seew xaay ni sant Kandi ñoo koy moom ba ci entraîneur Gris Bordeaux bi ko yoroon box lu koy Kandi waa seew xaay la. d'accord nga dem ba biir Saalum Ndaraame Escale ba Kandi googu ñu ngi jógee ci maam man Ndaraame foofu nañ jógee man de ñooñ laa xam mais jóg na taxaw di warante di ma wax loo xam ne saaga naa ko nag waaw barke borom tuba nee naa ko sa tànk su dëggee ndakaaru waa daaru rahmaan dinan ma woo ne ma ñëw na mi ngi ndakaaru te fu ma la fekk maa ngi sa kaw barke borom tuba mbaa xam nga lan la ma wax dangaa njaboot damaa njaboot ci lan su duggee ndakaaru boo xeexee dañuy waa wi fleuris ak ñëpp dinan ma ne ñëw na waa wi fleuris nee ma noppil ba mu ne tegg ab tànkam ci ndakaaru foo nekk dinañ la ne ñëw na. ñooñu dañ ko bëgg jaay. xam nga lu mu la dañ ko bëgg jaay. lu mu la wax qualifié nga ndax kaw ko fawul deful benn waaw waay waay man li may wax man. ñu dëkk Daaru Rahman xam ma. jaru ko de dama ne. léegi papa. jotewu ma ak moom dara. waaw léegi li ma tudd dugg ci dara. waaw papa bu dul renfort ci télé bi yow kay. wutuma benn renfort léegi wuy ma ma wax la lu gën a yaatu encore. ah non non non dama ne. dégg nga ko non ni nga. non kii ku doy waar. xam nga lan mooy renfort ci télé. du dafa bëgg wérante. du gisee Dakar woo ma ñëwaat. dafa bëgg wérante. léegi nee na sant yi bu ma ko tudd léegi kay ni nga ma wax lu gën a dee ci sant yi soo demee ba Casamance. Hmm. Fati. waaw mooy Faal. dëgg la. Ibrahima Ndaw moomu. papa Thierno Ibrahima Ndaw moomu. c'est le père de Déthié Ndaw. Déthié Ndaw mooy directeur NMA. yaay Sénégal. <laughs> Faal yaa ngi may dégg. Mm-hmm. Cheikh Omar bu waxaat ba nga topp ko. parce que day mm-hmm. perturbé c'est pas bien ça. Mm-hmm. léegi. nuyoo da nga ñëw rek di wax ci jéy. waaw sa <laughs> waaw ndax loolu maa yóbbante te bëggu ma fàtte ko te tooñ na ma Abdoulaye Cissé tooñ na ma lool. waaw maa ngi nuyu ñëpp bugaan ngay dani sunu borom yàlla na la yëkkati ba ñëpp seen ci barke Sëñ Tuubaa Cheikh Ahmadou Khadim mhm. bu baax a baax a baax a baax a baax. di nuyu Cheikh Mahamadul Habib Mbacke ibnu sëñ Ablahi borom mbir bi rakk Serigne Cheikh Mbacke le lion de Darou Rahman. Mhm. yàlla na nga gudd fan lool ci barke Sëñ Tuubaa Cheikh Ahmadou Khadim ba mën a liggéeyal ba mën a liggéeyal Muntaha Muntaxa Fatuma mama Mamma yalla na gudd fan sëñ Babacar Si Mansour ban ma ngi nuyu bu baax di ñaan jamm ci yow bu baax baax yalla na la yalla may jamm di nuyu gep ma kenn jogu Gay babu Mbend fàttewu ma la di nuyu ñepp daal réew mi yëpp ma ngi leen nuyu ci barke sëñ Touba Cheikh Ahmadou Khadim di ñaanal nak sama sangi di ñaanal ñom manel bu tonton doon maa woo keroog ne ma ñëwal jël sa sangu yi ma ne am ah, ñu ne ma waaw waaw manel bu tonton baaxaan bu sama maam yëlli manel mu ngi nii sa mbubb ba ngi nii ñëwal jël ko di nuyu bu baax bay bayaar manel ko du ngoy maam Ablaye Fall mhm. di ko ñaanal jàmm bu baax di ñaan yàlla na ko yàlla may jàmm ci barke sëñ tubaa di nuyu bu baax sama maam Cheikh Ngone maye moom maye jokkel moom lat kayre maye jokkel bu tonton Omar Bayo Fall maa ngi leen nuyu bu baax ah gis-gis moom nee nañu ku nekk ak sa gisin mhm. ku sa gisin mhm. gis-gis la li may ak kenn sama gis-gis laa wax man laa wax mhm. ci gis-gisu kenn ku nekk ak noo gisee waaye lii xew dëgg la nag logique amul ci sport logique amul ci sport waaye nag am na loo xam ne soo ko ne jàkk xool ak njëlbeenum soo demee ba ca digg sam xel dina war a mën a ñaaw hmm. waaw man de samam xel dafa ñaaw sama xel dafa ñaaw gune yi allure bi nu amoon nekk champion d'Afrique jël coupe d'Afrique indi ko dajeeg ñoo xam ne ñu féroce doon doxal ci yoon di teg ci yoon ñëw itinéraire bi nu jaar fana nu jaaroon ci coupe d'Afrique ba ndax coupe d'Afrique ba ba nu jógee taxul nu neex la de doona dem ba ñàkk yaakaar soo gën a lancé wu ñëw coupe du monde jaar ci trace yooyu ñëpp di am yaakaar ba tey nga xamante suñu dóoroon doonay jàll dem ñu dem ba toll fii xale yi ak nii nu mujjee ak def ñëw tey mel na xaj bu jub tabaski gumba ah, sama xel yàqu na de waaye nit ak loo mën yàlla mooy ñëw logique day am waaye nit man day démb Cheikh Oumar hmm. bi tafsir Maba Diakhou Ba di dem somb am na jigéenu séeréer du taxaw joo xam ne mi ngi bokk ci rang wu Buur Siin dafa ne may ma su Maba ne teggi weyu fasam yi ci suufu siin ma jóg naaw soppali ko am pitax daal di wër xiin ba xiin wi ñali ngaan ma taw ci kawam puudaram ak balam ak dóomam lépp seey. dëgg la yaa wóor de. l'Afrique a ses mystères. Mhm. jàpp nañu sëriñ di ko jéemal di ko jéemal di ko jéemal mënaluñ ko dara ñu ne nan la ñuy def ba jàpp ko ci sëriñ ñu ne ah te a liggéey neexut a liggéey entourage am dafa fatt taret ñu ne ca entourage ba nan koy jaar mooy li ma leex nee naa la buur saa yu daanoo dag yaa dag mooy ñu nekk ci wet gi entourage am hmm. buur saa yu soo ko jeexee di ko jeex ba keroog sotti entourage ba ci la entourage ba ci la am na fi si làmb ji mbër bu mag ba nu egg jox la exemple ci mbër bu mag hmm. ñoo ne nan la ñuy def ba jàpp ko sëriñ ñu ne kenn mënu ko jàpp sëriñ waaye xam nga ñi nga xam ne sunu borom daf leen a nar a mbugal ëllëg daf leen di joxum xel. Ah. waaw mooy iblis yu njëkk ya iblis ay sëtam ñu ngi fi. <laughs> ay sëtam ñu ngi fi ak njabootam ñu ngi fi. doon am daraja. doonu am ay moyens lu bëgg doo koy mën sunu borom daf leen di jay doo leen ñemee tudd doonu am dooley zahir am dooley adduna ba sax sunu jàkkaarloo ak yow sunu nee dama ne sax doo ñemee wax sunu wéetoon nag yow saaga la soo génne ne diwoo ma saaga na la waxoo dëgg noo kooku nangam te fekk naa féq la fekk moom naa féq la waaw Hmm? moo jóg taxaw ne da ngeen di jël aw nag su ngeen jëlee aw yëkk wu duufa duufa duuf ngeen sol ko liggéey bi su ngeen ko solee liggéey bi ba mu naan liggéey bi nu fanaanal ko ba liggéey bi saf ci aw yaramam mu jël ko dugal ko ca dëkk ba nu ray ko def ko tong-tong daal koy jaay mu dugg ci këram ku bëgg aw yàpp la hmm. su ca lekkee liggéey bi dina ko jàpp effectivement noonu la demee nu jàpp ko waaye kenn mësu koo mën a jàpp ci këru àdduna ci liggéey kooku entourage am la ma la déggee père dañu xon dama ne lii soo ko xoolee man laa wax sama bopp laa ah, ah. wax de waxuma ah, kenn sama gis-gis laa wax lii lii xam nga ne lii tey gune kan moo ci ficciku kenn ficcikuwul dama ne fasu course taxaw na doon gañaa raw tey ñëpp taxaw loolu nag course ñoo ko xam ak jockey yi waa ak parfumé yi raw ñëpp xam ne tey fas yi mooy favori tey moo war a raw ñi teg ci fas wi ay millions dem ëlbatiku nu dem ci sëriñ liggéey fas wi ba donc naan da ngay dem rek wër ko soo ko wëree rek sotti sunguf si bàyyi ko sunu ne ëpp nga rob dootu la gis sax day jaxasoo wala mu maal dugg ci course bi génn wala mu dem feneen mais tey xale yi. est-ce que loolu taxul coach bi feebar. Ah. Sénégalais rek papa suñu dóoree rek ñu ne xar fa buuf wala. lii ma gis ci gone yi tey doon leen a téye. mais ñeneen anglais mën nañ football papa loolu ci xam. lool mën nañoo football lool ñoo dàq football France yaakaaruma ko de. ah dóor nañ fi France de wala dóor. oui mais équipe bi c'était jouable. Mm, mm, mm, équipe bi tey c'était jouable. nee na ba xam ñoo dàq football waa ah, France. France gis gan la def waaw waaw. mais ñun door nañ fi France mhm. ah lool la lool day ma France dal xalé bi duma mag bi xalé xalé bi duma mag ya nga France boy Mbappé France dafa champ jël coupe du monde jël coupe du monde jamono am na ndaw gune yi gune yi gune yi ko wunu dara gune yi ko wunu li ci ci waaw ma taxaw nanu mu dem ba wara ngembu ba ngembu jot biñ demee ba mu des deux jours ci préparation combam mu am ku ñëw indi ay gàllaaj indi lépp daal ne bàyyi ab bàyyi ma njoon du ma tudd tur bàyyi mhm. ndax mhm. am na combat mhm. moom baay ma njoon am na combat fii mu ne ñu ñëw daal di indi gàllaaj yëpp daal di koy jal te boobu fekk na man maa fa nekk maa koy jottali gàllaaj taxaw mu ne ko sëriñ diw moo ma ko jox kii ay gàllaaj yi bàyyi ma njoon la ci télé laa nekk ñu may dégg ba saa ma ne Alaaji Ablaay mu ne ma ne ko kul ndi gàllaaj yi mu ne ma diw moo ko fi indi nee na sëñ diw moom moo ko yóbbante bàyyi ma njoon pour kombaam ne ko doo téléphoné laaj ko mu téléphoné ne ko jërëjëf gis naa li nga jox diw ci gàllaaj ak diw nangam nangam mi fi yónnee mu ne ko bu mu ma ak moom joxuma ko ko bàyyi ma njoon yaa ngi may dégg soo contesté ma wax tur am nga loo duggee ci ligne bi dugal nga weddi soo weddee ma ne la diw la loolu am na loolu fu nekk lu mu am mais kon mbooloo suñu bokkee lëf